dara euh, comme ni nga waxee xëyaat génn ci waxaat loo xam ne tey ci koo xam ne da ngay jàngale ci oustaz boo xam ne dañ laa war du moo am xam nga ñoom moo na liggéey ñëpp dañ leen testé mm-hmm. ña liggéey ñëpp dañ leen testé ñëw ñu seet la ba wóolu la jël la mm-hmm. oustaz bi ngay jël dangay ngay xool koo xam ne ferul ijji mm-hmm. muy jiite oustaz bi. ci rajo wala ci télé. jiite oustaz bi rek. li mu wax la oustaz bi wax lu mu waxul oustaz waxu ko loolu kooku du oustaz gis nga eh, yow mi nga xam ni dangay ngay waxal diini dangay tànd tànn yàlla. mën wut xaalis xaalis du dara. xaalis bi ngay jël du dara. wuutal yàlla mooy dara. mais xaalis du dara. li ko indi nag mooy xaalis bi dangay ngay ñëw rek ne waaw man ne dama bëggoon film ñu jël ma mais ayca del del jël takkusaan ah, del jël timisan ah, wala del jël suba ah, nga commencé xaala laaw bu aaya boo wax ki ngay nekkal xamu ko mhm. xadis boo wax du ko xam dara la xamul ci li ngay wax yow miy wax aaya xadis sax xamoo ko yow itam mhm. ko xamul dara nu muy waxee dara nañu seet ko xam muy wax mhm. Cheikh Al Hadj Malick foo waxoon benn wax bés mu ni ah tiit de jot na ndax ñi ferul ijjee ngi wax ñi ferul ijji noppi ñi wax kenn feru ci ijji ñi fer ijjee ngi noppi te loolu muy dëgg buñ demee ba ko ferul ijji di wax di ñu ne wër ngay xabar xabar yi waaw mbëtt ma rey na golo ga golo ga rey na mbëtt ma nii la ko yonent bi def daal def nii sa loxo téye waay maa la wax loolu da nga boo ko seetloo dama dañ la wëcc damaa tikkane loolu pour lan la amul njëriñ yow da ngay waxtaan pour nit ñi jëriñu waxal pour nit ñi jëriñu li ngay wax de ko contrôler dee ko contrôler parce que nit ñi dañuy bàyyi xel li ngay wax te li ngay wax dañ ciy jàpp war na féeg yow mal xiyaam baat boo wax war nga ko mën a waxaat ay oustaz oustaz léegi moom maa day taal dañ ne la nga naan woy nangam nangam yaa ngi ci dir yanke ya ngi ci alaaji ya yaa ngi ci ña am xaalis yaa ngi ci ñooñu rek ngay wër fu tukki neexee nga dem loolu boo ko wëree doo doo dem da ngay seet li la sa diine sant nga wax nga nga dox loola wax loola ko defee loolu moo lay musal voilà. macha allah mais oustaz ndax bu loolu amee tey ci dëkk bi ñu seetlu ko même dafa mel ni ba tey euh, wax fi dëgg day métti parce que bu ñu xoolee ci cadre ki nga xamante ni moo di Kouthia. ñuy gis kàddu yi nga xamante ne daf ko yëkkati ah bu demee ne euh, weeru koor oustaz bu ne war ngaa bañ animateur toog di la diriger euh, ci nga xamante ne jàngul xamul dañuy ñëwaat sa wax ji. mais wax jooju dafa mel ni moo ko jëlee fi nga xamante ni tey moo di TFM mu nekkoon mu mel ni léegi nit ñi dañuy def ba pare bañ ko ci wax dëgg. waaw Kouthia maa ngi ñaan Youssou Ndour mu jëli ko sama diggante Youssou Ndour maa ngi koy ñaan mu jëli Kouthia su ma diggante Kouthia maa ngi koy ñaan mu dem bu ko Youssou jël si parce que li wax dëgg la ñun koy ñun koy buñu bu ñu xaj bi màtt kay nañ ko nangu rek ci yoon xaj bi màtt nañ nañ ko nangu man de toog naa fii ba tey ay jigéen toog ak man muuruñ moo ko ngeen gis. da ngeen ko mm, mm. yéen ñëpp a ngeen a ngi toog. ay jigéen toog ak man muuruñ ma wax leen ko. Mm. parce que loolu du dara. yow li ngay liggéey loolu la laaj. waaye ku caa mu wax dëgg. ne télé yëpp nag laa wax. télé yëpp laa da gis koo xam ne moom moo yor diine ji. ko yorul diine ji di ko diri sëb luñ ndeyam. Mm-hmm. luy ndeyam saret kay bu ko fas jiitoo daanu xañ na ca ba dënn bu xar xar fas waru jiitu moo war a jiitu fas fas a war a jiitu mu topp ci kon euh, seet nit koo xam ne xamul dara mu diriger la ngay ci kàmb rek la ñuy mujj yow ci kàmb nga jëm moom ci kàmb la jëm koy seetaan duñ dugg ci kàmb parce que ñoom ñu nga seen kër toog waaye yow ci kàmb nga jëm ndax yaay tuub yaay mujj dellu ginnaaw jéggulu lu ko jar nit war na buy wax na wax rek lépp lu mën a doon nga di ko wax man ko mën ko baax na de yonent bi alayhi salaatu wasalaam saaba yi ne leen lépp lu ngeen di wax ngeen xool mujj mbir ma su fekkee yiwa nga ca wax leen su ci yiw nekkul baleen fekk yiw a nga ca wax leen bu ci yiw nekkul baleen waaye yow nga bëgg bës bëgg siiw bëgg yëkkati ko ah li ko caa wax dëgg ko caa ni wax moom dara nekku ci ñun kay ñoo war a seetaat suñu bopp mu ñu fàttalee suñu bopp dañoo war a seetaat suñu bopp mais ah lii kan moo wax dëgg la ki kat kii jàngul waruñoo dindi kon nañ ñu jox émission bi ñu diriger suñu bopp waxal suñu bopp wa illaa ñu arrière loolu mooy dëgg ah loolu lay dëgg di a ah, moom kay nag wax ji de wax dëgg waxtaan wax dëgg ci la bokk uh-huh. waaye Kouthia moom uh-huh. li wax dëgg la moom uh-huh. maa ngi ñaan na Youssou Ndour nu mu mën a def ñu jëli Kouthia gis nga wacci nit baaxul wacci nit wóorul nit soo amee téeméeri nit kenn rëcc la manoo fexe ba waxati am naa téeméer juróom-ñeent fukk rek nga am ak juróom-ñeent wallaay dëgg mhm. waaye boo amee téeméer téel wut benn dolli ca mhm. wutaat beneen dolli ca nit ku baax duñ ko sàggane mhm. nit ku am njëriñ duñ ko sàggane nit ku lay jëriñ bul déglu waxi nit ñi ku caa lii ku caa la dara bu ko déglu yéen ku caa bul déglu waxu kenn ne yuusu dem jëli ko ku caa na dem wuyu ñu bokk liggéey parce que mën nañ liggéey ku caa jàmbaar la jàmbaar la ci liggéeyam ku mu toppandoo ngeen ne kii la ku mu toppandoo rek ngeen ne kii la yëre jigéen yëre góor yëre paa yëre xale ñu ne lay def que am na loo xam nit ki daf ko daf ko bàyyi war a bàyyi xel waaye euh, euh, Youssou daan na ko jëli rek Youssou daal li ma koy ñaan sama digganteeg moom ak wóllëre yu ñu seq na ko jëli euh, Kouthia itam li ma koy ñaan ak sunu wóllëre na ko na nangu dara xewul dara xewul seytaane yi nag buñ ci duggee du baax mooy yàqkat yi Sénégal fu bëri seytaane ba ne ko ne onze billahi mina seytaane ji fekk moom seytaane moom ci boppam seytaane la waaw waaw seytaane buy muslu seytaane la foo ko gisee seytaane kay xanaa <laughs> day day muslu ci waaye seytaane di muslu seytaane te seytaane la du sotti kon aouzu billahi mina seytaane rajim te yow bu mag nga xanaa ko yàqal ma wax la iblis seytaane ko yàqal mm-hmm. iblis seytaane ko yàqal xe seytaane idée bu bon la biñ ne ko isjuddoo li aadama fa sajud ila iblis bëggoon naa sujjood waaye seytaane dugg ci xel ma ne ko yow li nga yàggee fii li nga yilif fii li nga doon fii ngay sujjootul kii xanaa doo ko def mu bañ fekk ki ko fal mm-hmm. moo ko sant lii ki la fal nag bu la santee mbir da nga koo war a def. Mm-hmm. maa fal. ne la defal lii def ko. mu lànk moo ca la génn iblis sa ko yàqal. Mm-hmm. moo yàqal iblis. Mm-hmm. seytaani yàqal iblis. ci xel mi rek. ci xel mi rek. seytaani baaxul. na moytu yàq di yàq yi nga ne diggante bu fi commencé nii. te gaawuñ ci rek. yàq dugg ci. waaye kii daal jarul sonn waaye waaye yuusu da waaru waaye xam nga kii li mu bëgg dafa mënta nekk dafa mel ni moom moom télé bi nangam nangam dugg na fi génn yuusu na fekk amoon na xalaat bu rafet xal ma xel ma ñaaw kay dem ci Kouthia c'est bon yaa ngi ut sa yëf bopp nii la sax parce que nekk ci yëfu jàmbur doo yëf da nga war a ut sa yëfi bopp waa koy jàmbaar nga bu génnee ni ba ko foofu rek mhm. ba ko foofu rek day dof dof mhm. yàqkat baaxul yàqkat baaxul ñi kilifa yi yëpp loolu leen yàqal dañuy am ko am njëriñ am ko am solo ñu fexe ba ñàkk suñu ko ñàkkee nag buñ demee ba ca kanam la ñuy xam li ñu ñàkk waaye duñ ko xam ci l'instant yi parce que seytaane yi leen di wër pour di dox dox diggante kooku ko eh, eh, eh, li kilifa gi bëgg suñ doxee nag diggante mook moom hmm. alors yàqu-yàqu am hmm. bul ko nangu kilifa day am sago hmm. kilifa day teey kilifa day bàyyi ba lépp dal mu dem waxtaan ak njaboot waxtaan ak moom delloosi ko lu mu lay wàññi yow kenn mësul dégg dàq nga kenn ah, dégguma ko ko ko ko de dégg guma ko wax dëgg yàlla te gis nga ti moom mbay gi ni ñu yàgg. Mhm. ñaata at. déggoo dara dara dara dara lu ko yuusu def. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. noonu kon nañ ko jëli. delloo si ko. waaye ku caa nangul. yow nga dellu si rek nangu.